Alcantara Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. ñu ngi leen ñu fay ñu ngi leen di fay. fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey euh, kii di euh, secrétaire général bu syndicat des inspecteurs et inspectrices euh, du Sénégal wax ci li nga xam ne njiitu réew mi yëkkati na ko bu yàggul ca ba ñuy lancé benn projet. duppee ko PASEC 2019 boobu leen daje njiitu réew mi wax na ci ne il faut ñu forme inspecteurs yi tey lim bi dafa war a gën a yokk lan ngeen xalaat ci kàddu yooyu. waaw liñ ci xalaat mooy di ko rafetlu di ko rafetlu euh, d'abord parce que c'est important que ci niveau de responsabilité bi mu toll. Mm-hmm. Euh, ñu dégg ci ci ci gémmiñam mu wax ne euh, mu tudd inspecteurs yi d'abord loolu mooy quand même leen jëmmal et ensuite mu constaté que ne il y un déficit maanaam dafa inspecteurs yi lim bi doyul. Mm. beneen mbir mi mooy mu wax tamit ne. Euh, lépp loo xam ne def nañ ko ci ci ci góorgóorlu nañ ko ci wàllu jàngat jàngale bu fekkee amuñu ay inspecteur ci lim bu doy mhm. euh, loolu yëpp dina sooxe donc moom mooy que dafa def benn genre équation boo xam ne ñaari termes yi moom mooy enseignant côté bi il faut ñu am ay enseignants yu doy euh, beneen côté bi mooy il faut ñu am ay inspecteurs yu doy parce que bu fekkee amoo inspecteur yu doy mhm. enseignants yooyu mun nañ ne seen njëriñ du demee noonu alors ah, nag daf ñuy poussé ñun ñu taxaw tuuti pour wax ne inspecteurs yi aussi nit ñi il faut ñu xam ne seen liggéey du rek dugg di euh, saytu pour sanctionner bundu xatal enseignants yi. Mhm. mais seen rôle moom mooy que ne bu fekkee ne investir nañu. ci système bi mu doon ay euh, matériel doon ay oto doon ay personnel euh, comme koo xam ne day gérer entreprise rek ñun suñu rôle mooy ci biir secteur bi ñu fexe ba nga xam ne secteur bi am efficacité maanaam école bi investissement buñ ciy def mu mhm. jur Euh, ay résultats euh, résultats te nañu luñ ci bëgg mooy xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi ñu jàng jàng boo xam ne dafa mucc ayib. Mhm. luñ ci soxla mooy élèves yooyu bu ñu génnee ëllëg ci école bi amal një amal njëriñ réew mi. alors donc loolu mooy capital humain bi ñuy wax ci wàllu PSE euh, ñu former capital humain bi. Mhm. ensuite ñu consolider capital humain boobu il n'y a que comme ça qu'on peut aller vers mhm. donc inspecteur bi de gunge enseignant bi. ci ba muy dugg ci biir secteur bi ba ba buñ ciy génn maanaam développement professionnel am formation initiale am formation continue am examen yi muy def ak yooyu yëpp euh, inspecteur bi moom moo koy ni école yi doxee ni li et lool loolu liggéeyu inspecteur mm-hmm. donc inspecteur bi dafa am solo euh, ci biir système bi bu ñu amul inspecteur yi doy te chiffre yi wane na ko wane ne li ñu waroon am mooy benn inspecteur pour juróom fukki enseignant mhm. pour mu mun leen saytu mun a def liggéey bu mucc ayib ci biir district pédagogique i waaye li nga xam ne moom la am actuellement mooy benn inspecteur pour ñaari téeméer ak juróom fukki enseignant xam nga ne donc Euh, kooku bu fekkee da ko positionné ay jumtuwaayam doyul maanaam moyen logistique yi amul motivation parce que condition de rémunération yi demeewul noonu mm-hmm. te inspecteurs yaa ngi dem rek yeneen ci ONG yi ñu ngi dem ci projet yi ñu ngi dem ci yeneen secteurs yi ndax dañoo def liggéey bu métti ba egsi ñu toll mm-hmm. dañu dañu méngale seen bopp ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy nekk yeneen secteurs yi gis ne effort bu di bi ni mel ñooñu buñ ko defee dinañ toll ci beneen niveau du point de vue Euh, il est important bu fekkee bëgg nañu renverser dynamique bi ñu former ay ñu recruter ay inspecteurs nombre suffisant Euh, te loolu moom vraiment nguur gi ñu ngi ko ci woo di ko di ko ci di ko ci di ko ci encouragé bu baax. Mm-hmm. beneen mbir mi mooy ñu am une politique de maintien maanaam nan la ñuy def pour inspecteurs yooyu def ci biir système bi te pour loolu il faut ñu liggéey ci wàllu condition de travail yi. Mm-hmm. il faut ñu wàll liggéey ci wàllu maanaam ndàmpaay bi ak condition de rémunération yi bu ñu gisee ne daal vraiment valoriser nañ leen. Mm-hmm. Euh, dinañ des parce que ñoom buñ fi desee euh, day sécuriser ñun suñu investissement ci secteur éducation et formation. loolu daal moom vraiment la ñu gisoon ci ci am appréciation maintenant beneen mbir mi mooy. Mhm. Euh, il faut ñu signaler ko ne moom moom moo am coobare ne recruter leen temps. Euh, <laughs> voilà donc quota yi moom moo koy jox Pastef moom moo koy jox MCET moom moo naan soxla nañ temps inspecteur nañu recruter temps inspecteur euh, loolu moom ci ci ci coobareem la donc bu ñu recruter wul assez c'est parce que depuis quelques années. dañoo utiliser école bi comme variable d'ajustement maanaam li ñu naan rek ñu ngi góor góorlu ci wàllu financier def ko ci école bi boo mm. xoolee au fond en réalité ñun dañuy poser waaye question donc moom na renverser la dynamique comme def na constat bi recruter assez d'inspecteurs et former assez d'inspecteurs. ndax seen xel dalul euh, ci li mu wax ne moom euh, dina def kem kattanam euh, def les moyen même si tamit li jëm ci supérieur bu mënul former ay inspecteurs dina ci dugal loxoom. question par rapport ak nan la mën a amee nan la mën a amee loolu vraiment ba mu ko ba ko déggee dañ ne peut-être moom euh, am na lu bëri lu ko réeree euh, mbir ci question bi wala peut-être am na lu mu nar loo xam ne waxagoo ko euh, parce que inspecteurs yi ñoom bon formation universitaire la waa école normale ex école normale faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation ñoom ñoo leen di wa waa INPEP e ñoo leen mm-hmm. yi dañuy def du dem au moyen secondaire euh, euh, concerné enseignement général ak enseignement forma et technique et formation professionnelle mhm. donc bu ne dina jox moyen ils vont trouver les moyens pour euh, jox ministère de, de, de l'éducation nationale la possibilité d'en former en nombre suffisant ah ñun ñi ngi xaar ba xam ban modalité en tout cas dinañu jaaxal nous pensons que li nga xam ne moom la ñu war a def moom mooy yokk kota yi pour que ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo formation bi ñoo am profil bi ñoo am compétence bi pour former. Mhm. Euh, te boobu ba léegi euh, vraiment commande yi ñu leen doon jox ñu ngi koy ñu ngi koy respecté. Mhm. ñu jox leen ko parce que bu ñu leen joxul commande ñoom ñu liggéey donc question bi ce n'est pas que ñoom amuñu possibilité former à certains secteurs non. c'est parce que quota yi nga xam ne moom lañ doon xaar moo ñëwul. Hmm. wala bu ñëwee lim bi doyul. Hmm. am na beneen aspect je sais pas ndax moom responsabilité am engagé na ci euh, foofu muy formateur yi nga xam ne euh, jàpp nañ ne joxatuñu gëdd lii di inspection yi ndax li ni mel euh, dina tax tamit éducation am. waaw man duma ne joxatuñu gëdd parce que ñun ñi ay inspecteurs lañ ñu ngi liggéey ci wàllu district pédagogique yi ñu ngi gérer ay école ñu ngi gérer ay établissement ñu ngi nekk ci IEF ñu ngi nekk ci yi. relation bi nga xam moom am entre inspecteur ak instructeurs yi ak professeurs yi mhm. relation la boo xam ne dafay évoluer dans le temps xam nga aussi suñu école comme dafa doon une école héritée de du colon de la colonisation tubaab yi ñoo fi nekkoon nekkoon ay inspecteurs mhm. am na relation yu ñu amoon ak nit ñu ñuy sénégalais yi ñoom dañ doon mekk en avant trop aspect euh, gendarme bi maanaam gendarme dans le bon sens c'est-à-dire dañuy ñëw gëstu euh, pour sanctionner. Hmm. pour sanctionner ñun nag euh, vraiment génération inspecteurs yu mujj yi ak formation yu mujj yi ñuy joxe dafa gën a tourné wu ci xool fi nga xam ne fa la enseignant bi soxla. Hmm. am soxla ñu ñu dimbale ko foofu jàppale ko foofu c'est vrai que aspect contrôle am na. Hmm. parce que inspection ordinaire yeeg inspection de direction yi ñu ngi leen ñu ngi koy def. enseignant boo xam ne ni li ngay liggéey euh, jàngale woo programme bi wala respecté woo réglementation bi euh, am na ay sanctions yi daal sa kaw waaye nag du sanction boobu la ñuy jiital trop sanction négative yi euh, li nga xam ne moom la ñuy gën a jiital mooy nan la ñuy def pour que investissement bi nga xam ne nguur gi def na ko mm-hmm. ci wàllu école ci wàllu salle de classe ci wàllu matériel didactique nan lañ koy sécuriser Euh, nan lañ koy transformer accompagner enseignants yi pour ñu mën a am ay ay performance ay résultats yaakaar nañu daal koo xam ne day gérer entreprise wala day gérer secteur loolu mooy yow la ñu dénk secteur bi da nga war a fexe ba secteur bi amee résultat d'autant plus que actuellement fi ñu tollu nii dañ ne dañoo bëgg ci wàllu PSE euh, école bi ak éducation bi doon vraiment le socle le moteur comme dafa war a doon moteur bi nag euh, ki nga xam ne nii moom mooy vraiment ci gën a yellool ñu fësal ko valoriser ko gën koo jox ay moyens moom mooy inspecteur bi parce que inspecteur bi loolu ci ay soobare la. budget deux mille vingt et bu euh, njàng meek njàngale bi ministère bi arrêté nañ ko à plus de cinq cent quarante et un milliards ñu gis ci yokkute buñ ko méngaleek euh, bu daaw euh, tey seen lecture. waaw lecture bi nag moom da dañ ciy wax rek ne en fait yokkute boobu. am na en valeur absolue et en valeur relative maanaam boo ko méngalee budget bi passé am na yokkute waaye yokkute boobu dafa mel ni li ñuy wax ci tubaab garab goo ne day nëbb àll bi. Hmm? Euh, parce que boo ko xoolee ki nu mu tëddee. Hmm. Euh, mun nañ ne juróom-ñetti fukk yi euh, ci téeméer boo jël dañ ko dañ ko dañ ko féetale wàllu fonctionnement maanaam salaire yeeg yooyu. ak hmm. li nga xam ne moom moo des rek moom mooy ñaar fukk yi. Euh, moom mooy moom la ñuy utiliser pour investissement maanaam lu ñuy liggéeyee vraiment demeewul noonu ci mm. solo par rapport ak li ñuy consacré au fonctionnement lool nag c'est un problème c'est un problème parce que bu fekkee dañ ne dañoo nekk ci réew moo xam ne école bi dafa sooxee mm-hmm. ñu gis ne euh, dafa am ay déficit maanaam ay manquement amuñu ay salle de classe yu doy amuñu ay euh, table banc yu doy mm-hmm. amuñu ay résultats yu doy Euh, amuñu ay euh, et cetera abri provisoire yi bëri gis nga depuis 2017 ba léegi euh, dañ doon wax ne juróom-benni junni tab abri provisoire moo am dañ ko bëgg a résorber dañ ko bëgg a éliminer mm-hmm. te boobu ba léegi mun nañ ne téeméeri abri provisoire yooyu jël fukk ak juróom yi lañ ci lañ ci réaliser donc mooy wane que ne à ce rythme dina dinañu soxla ñaar fukki at <laughs> pour mun a résorber loo xam ne ni depuis 2017 dañ ko commencé mooy wane que Euh, jot na. Mhm. pour ñu taxaw bu xoolee table banc yi aussi gis nga ne ren ñu ngi wax trois cent trente mille table banc. Mhm. alors donc euh, loolu day wane. Mhm. Euh, que ne dañoo war a taxaw pour résorber défi. d'accord alors donc pour ça nag il faut ñu reprendre ñun suñu souveraineté ci suñu école maanaam que financement wu école bi ñu xoolaat ko. ba li ci ëpp wala l'intégralité mu doon loo xam ne ñun ci suñu réew lay jóge te ñu fulandi ko par un plan de relance de l'éducation dem uti maanaam fexe ba ci suñu xa suñu kàttan ñu yokk ko ci wàllu jàng jàngale mhm. euh, euh, dindi lien bi nga xam ne ni systématiquement moom la ñu am par rapport à l'étranger euh, fexe ba nga xam ne xale bu ñu suñu école day tourné wu ci résoudre les problèmes yi nga xam ne ay problème Sénégal la. Mhm. Euh, dëppoo ak suñuy réalité socioculturelle il n'y a comme ça qu'on peut faire pour école bi daal vraiment ñu am ci li ñu bëgg tant defuñu loolu ñu pensons que dañuy def rek du dañuy def du sur place dañuy def du sur place. Euh, te vraiment mérité nañu euh, leneen lu dul loolu. Mhm. jeexalee rek ak seen plateforme revendicative tey waa CNC yéen fu ngeen ci toll. waaw fu ñu ci toll moom mooy que ne am na jéego buñ ci def ak nouvelle gestion bi parce que. Euh, signé nañu benn protocole sectoriel. Mhm. Euh, protocole sectoriel boobu nag euh, ministre bi amoon ay engagement yoo xam ne moom la engagé woon gouvernement bi. am na yuñ ci jot a def ay jéego yuñ ci réalisé maanaam ci wàllu cadre réglementaire bi évaluation processus de sélection mise en place des districts am na aussi ay engagement yu ñu jëloon ci wàllu texte yi. Mhm. texte CRFPE yi par exemple génn Euh, circulaire du cycle pédagogique yi génn na euh, yu demee noonu waaye euh, li gën a am solo pour ñun moom mooy li ci des moom mooy mbiru logistique u CRFPE yi maanaam oto yi nga xam ne ni nguur gi engagé woon nañ day jox oto CRFPE yi mhm. boobu léegi defu ko loolu li ko gën a compliqué mooy décision bi président bi jël ne dootul jënd ay pour administration xam nga boo ne dootul jënd ay oto pour administration da mhm. parce que école yi dañuy soxla oto Euh, établissement yi dañu soxla oto centre de formation yi dañu solo oto donc lool mënul doon gàllankoor pour ñu dem vers cette réalisation foofu ñu ngi ciy xaar gouvernement beneen mbir mi mooy euh, les engagements financiers euh, indemnité logement inspecteur d' académie yi Euh, gouvernement dafa war a jël texte pour pour joxe ko. Mhm. beneen mbir mi mooy indemnité bi nga xam ne moom la formateur u CRFPE dañ ko war a am dafa war a jël benn texte pour joxe ko déterminer montant bi lu euh, gën a li nga xam ne nag moom moom la moom la pointé sànq. Mhm. moom mooy euh, départ bi nga xam ne moom la inspecteur bi di génn ci système bi par le biais de la mobilité horizontale détachement distribué di dem ci ay ONG di dem ci ay projet di dem d'autres secteurs. Mhm. day wane benn malaise ak benn manque de motivation. Euh, il faut donc gouvernement bi xoolaat euh, condition de travail yi ak condition de rémunération bi mhm. système de rémunération bi il faut ñu tëgg ci euh, pour question indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique bi ñu régler ko ak yi nga xam ne ni ay élément la yoo xam ne vraiment buñ ko traité dina tax ne dinañ am ay inspecteurs ci lim bu doy parce que ñoom ñoo am volonté politique bi dinañ dinañ certainement euh, teg ay jéego pour loolu. Mhm. mais inspecteurs yooyu bu ñu leen jëlee aussi ci lim dinañ des ci biir système bi ndax dinañ gis seen bopp ci condition de travail ak condition de rémunération yi. Alcantara Sarr ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. je vous remercie. merci maa leen di sant di leen gërëm. merci beaucoup monsieur Sarr.